الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu borom ñu ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaara ci mboolem turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi ñu ngi julli di salmal suñu yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ñoo ngi ñaan suñu borom mu dëkkee daf ci waami xéewal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ci àddina defal ñu tawfiq ci ci àllaaxira dellu si waat nañ ci ren keppaaru alquranul karim téere suñu borom bu màgg bi nga xam ni laa yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min xalfi ndax tanzilu min xakimin xamid téere la boo xam ni waxi naxas a kandang wala wax yu amut bopp amut géen wala wax yoo xam ni nit mën na koo corriger bi ci dikk la ko waral mooy dafa bàyyi ko ci ku xereñ ku man te ami sañ-sañ kooku mooy suñu borom subhanahu wa taala téere bi day mbokk yi kenn du ko katat sëgg ci sonn ci yitte woo ko mu dul suñu borom dana la defal ay teraanga ci àddina defal la ay teraanga ci àllaaxira téere la boo xamante ni yahdi lillati hiya aqwam in hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam alquran jii dafay gindee jëme ci li nga xam li nga xam ne mooy li gën a jub lépp lu ñuy réer li ci gën a jub ñu ngi ci alquran lépp lu ñuy seet li ci gën a baax ñu ngi ci alquran waaye lépp lu ñuy yaakaar la ci gën a yaakaar lépp ñu ngi ci biir téere bi téere la boo xamante ni dafay saafara jàngoroy xol comme ni ñuy saafara jàngoroy yaram wa yunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin dafay saafara jàngoroy xol yi feebari xol yi nga xam ni loolu hôpital mënu koo xas su ma nee feebar xol nag maa ngi ci nam mu feebar yi ngëm yàlla du yàq waaye dafay saafara feebar yaram qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaa alquran dafay indil njub ñu gëm yàlla waaye daf leen di saafara ci nit seeni tawam nekkete kon feebar yaram yi fajoo ay garab yi alquran da koy faj waaye alquran jiit mbokk yi téere la boo xam ni kenn du ko jàpp jaar ci ay yoonam lu dul dafay jindeeku ci biri addinaan ci biri allaxira ndax suñu borom mu ne maa farratna fil kitaabi min shay kon waajibu na nax alquran li ñu war jëm ci alquran mooy ñu di ko jàng di ko tadabbur di ko settantal di ci sonn ki la ci gën a sonn moo lay gën a jëriñ fii ci àddina àllaaxira koy tax di wax lu ñu ñaan suñu borom mu defal ñu dimbalee ñu dëgëral ñu mën a am mafatih tadabbur yi kon ci suñu dund bi weer bi comme ni ñu ko gisee ñu ngi nekkoon ci saar yi di suratul kër fii borom bi defal la tawfiq ba ñu yegsi woon ci aayay juróom-ñett tey ñu war a tàmbalee ci laayay juróom-ñeen ci suñu borom bi tàmbalee bi waxtaan yi ñi tax a jóg saar bi muy asxaabul kër suñu borom bi nga xam ne aoudu billahi min alsheytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim am xasibta an asxaaba alkahfi warraqimi kaanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تخرجهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
fukki laaya ak ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala ci tàmbali bopp bind bi mi ngi ñuy ñett ni ñi nga xam ni ñoom lañ tuddee saar bi muy asxaabul këf xam ngeen ni saar yooyu tudd suuratul këf al këf ci làkk arab mooy am xunut am na ñaari baat yu jógee ci làkku arab muy alxaar ak alkër ñaar yëpp xunt lay teg waaye am na umum ak xusuus su fekkee dañuy xaar muy xunt comme fa yonent bi làqatoon sallallahu alayhi wa sallam ak Abu Bakr loolu lu simple lay doon lu ndaw du yaatu ba àgg ci loolu waaye suñ ko tuddee kër du am xunt lay doon waaye dafay yaatu lool yaatuwaay bi alxuraan firndee na ko hum fii fajwatin min loolu yaatu la lay tekk kon xunt la waaye xunt boo xam ne ci biir bët la nekk ci barab boo xam ne ay montagne ak xamu kërte seen nekk ni kéemtaan suñu borom moo ci nekk donte nag alxuraan ci boppam dafay firndeel ci tàmbali bind bi nii alxuraan yépp ay kéemaan la waaye ki nga xam ne dafa jël qisatu asxaabil kahf rek jàpp ni dafa gën a yéeme ci alquran loolu day wane ab doyadeem ak ñàkk xam ndax su xamee dëgg-dëgg bi nga xam ni qisatu asxaabil kahf dëgg la kéemtaane na waaye nag am na lu ko gën a kéemtaane ci biir alquran moo tax suñu borom tàmbalee doon am xasibta anna asxaabal kahfi warraqiimi kaanu min aayaatinaa ajabaa am xasibta si ñenn ci borom xam-xam tafaasir yi ne tekki nax xam nga am mooy ndax am xasibata ndax da ngaa yaakaar ñu jël dañuy am li ñuy tekki mooy yaa tax sa bul foog ni bul yaakaar ni kon suñu borom ni am xasibata ndax da ngaa foog ni wala da ngaa yaakaar ni wala nga bul foog bul yaakaar ni anna asxaabal kahfi naka gaa yooyu nga xam ne ñoom la ñu tuddee asxaabal kahfi muy mbooloo ma duggoon ci xunti ma war raqiim ak mbind ma raqiim borom xam-xam yi am nañ ci ay jiwee yu bari ñenn ñi nee nañ arraqim ñooy seen turu xaj bi ñeneen ñi ci ñu dee arraqim mooy xuntu lañ nekkoon turu xuntu lañ nekkoon léegi wax leen ne sax yu bari am na ci wax yooyu yëpp dina sonn ci di parce que benn ci lënd waaye li gën a yëg dëgër mooy arraqim mooy am bind da ngeen suufu mutaffifun da ngeen fekk kitaabun marquum muy téere bu ñu bind. mbir mi loolu nag boobu amaan na yeneen juyoo ci borom xam-xam loolu mbir mi la lan la ñenn ñi ne asxaabul kahfi ci seen jëmmi bopp ñoom dañuy dugg dañoo bindoon seeni xabaar ak lenn ci seeni mbir def ko ci benn àll la sax foofu ñenn ñi ne déedéet arraq yi mbind la waaye mbind mi mooy seen téere bi nga xamante ni moom lañ doon jàng ci seen jamono muy téere yàlla wàcce woon ci yonent yi nga xamante ni ñoom fekkee woon nañ ñeneen ñi seen ni déedéet arraqim mooy bi qissa bi feeñee dangaa dëkk ba xam ni ñii asxaabul kahfi dañ doon di leen seeti fekk yàlla rayaat leen ñaareel bi yoon dañoo bind seen taarix seen histoire ci benn montagne foofu ñetti wax yi ma mujj wax yëpp benn bu ci nekk bu yenu maanaa benn bu ci nekk am na wécc bi bu koy firndeel di ko dëgëral waaye arraqim la muy fekk mooy am bind la bala moo gën a suuf suuf ñu xam ñoom ñooy asxaabul kahfi dana am solo asxaabul kahfi ban jamono la ñu nekkoon alxaafid ibnu kasiir mi ngi wax ci tafsiram wax ju am solo yoo xam ne bàyyi leen ko xel yéen ñëpp am na yoo xam ne ci kitabu alquran yi borom bi maanaam jënd ko yitte lool ban jamono la ñu ñoom ñu tudd seen xaj ba ñu tudd suñ nekkoon xuraafaat ak xujaabala ñu leen di wax ci dars yi paase nga xam ne moo fekk dellu si alquran boo delloo ci téere tafaasir dañ ko ciy fekk waaye yooyu amul solo ndax lu amul solo suñu borom dana ko leer li ñu mën a xam daal di alquran di ko firndeel mooy asxaabul kahfi jiitu nañ nubuwwatu Isa wala boog ci tàmbali ci nubuwwatu Isa ndax la koy firndeel mooy yëngu ji ci seen jëmmi bopp en général buñ faral di yittewoo lu seen yoon ne tey yëfi jàmbur dañ ko koy añaane ba tax duñ sa wax jëm te yëngu ji ñoom ñoo yabaloon ñetti nit yéeg yéeg a yabal ñetti nit parce que dañuy yabal ci yahud yi lañ leen yabal pour ñu laaj leen laaj bi ñuy gagloo yonent bi alayhi salaatu wa salaam te yahud yi comme ñoom ñoo doon joxe laaj ba la chaque lu jëm ci seen yëpp la ñuy wax wala ci jëm ci fi jàmm ko moom nuxta bu sew boobu bàyyi ngeen ko xel wala déet yahud yi bi ñu leen laajee laaj bi ñu seet yëfi chrétien yi parce que jubóo leen ñoom di ko wax kon seen yëpp la ñuy wax ñoom kon la ñu la ne mooy seen jamono te la xew-xew bii amee woon dafa am ci jamono bi benn buur boo xam ni ahlu siyaram xaw nañoo def ko ci tur turam muy Daqyaanus noonu la buur bi tuddoon bu ko dalee soo dalee ci Ibn Kathir wala nga dellu ci tafsiram wala nga dellu ci Bidaaya wa Nihaaya wala nga dellu tafsir Ibn Jarir dellu tafsir Ibn Kathir ila axiri tafasir yu bëri bëri dañ koy indi buur boobu dafa nekkoon buur boo xam ne ci kéeméer la doon jiite benn bis gaa yi am ak seet fet boo xam ne seen xërin yi la ñuy màggal ñu génn dëkk bi mooy comme li xewoon ci qissa Ibrahim ba mu dañee xëram bi bi ñu génnee ñu dem ba ci àll bi di màggal ak a sujjóotoo seeni xëram ak a rengee xërin yoonu ci yàlla bi ñu nekkee ci loolu ba mu yàgg am ci mbooloo mi ñoo xam ni ñoom yàlla dafa leen dafa nan ma sotti ci seen xol yi leeru iman benn waay jékki-jékki ba mu yàgg mu xool li ñu wendilee ak sujjóotu xéer yi mu ne man daal lii dalul sama xel dëkk dëkk kuy sujjóotal daal defe naa borom asamaan nii lañ war a sujjóotal waaye du waa ji muy ñu maral muy dóor muy tas muy yumax muy daal muy yàq muy ba daal muy daal kii waruñu koo jaam te jeune la mu arrière ndànk dem ba ci benn fekk garab mu toog léegi te li ko li ko roo mbir gi ko roo am na ñeneen ñu roo loolu mooy nag yuridu llahu an yahdiya bi yashrah sadrahu lil islam mu def suñu njub ci loxo yàlla nekk subhanahu wa taala mu gis ne waaye saay saay saay saay da nga jàpp ni kii ila axiri dahri bi gindee bis beneen la day gindee ba gën laa jub gën laa baaxee parce que hidaaya ci loxo borom bi la tege benn waay day nekk ba mu yàgg moom yëpp lu mel ni la koy yëpp mu arrière ñu wër ko mu toog seen ku toog ci pegg garab mu dem toog ci pegg waaye wax ko dara kii wax léegi beneen waay jékki-jékki laaj mu yëgaat loolu moom it mu rocceeku ci mbooloo bi ñëw fekk ñaar ñu toog mu topp seen fekk waxu leen dara ñu ne mbooloo bi luñ toll liy firnde mooy fukk wala lu yées fukk ndax innakum fitya te fitya ci làkku arab jamoo xilla la te jamoo taksiir la kon juróom-ñeent wala fukk jëm suuf ñoom bi ñu dajee ci taatu garab bi kii gis kii ñëw kii gis kii ñëw kenn ku nekk toog jàpp sa morso njàmbur ci njëkk a toog daal di waaye bu nekk nii ñoom ñu ne ko yow loo fi def loolu mooy li daloon Ammaar ak Suhayb keroog bi mu namlee tuub moom Ammaar ñëw ñoom Suhayb ñëw ci bunt daaw ak xam fekk Ammaar toog muy édité Ammaar xam naa ko lii dara la yéegal comme ni ñu ci kër Yonent bi alayhi salaam muy édité naa dugg dina dugg laaj ne ko yow Ammaar loo fi mu ne ko loolu loo fi mu ne ko xanaa dégg lu sële yonent bi di wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko loolu ma fi indi mu ne ko kaay kan jàppante ak ndax mbir ñoom ñaar ñoo tuumal waa ji ñu ñu leen déglu ku njëkk ci daal ni man damaa toog ba mu yàgg ma sentir ni lii ñuy defal xëy bi am na keneen ku ko gën a yore parce que ci sàkk asamaan sàkk suuf bind gisuñu ko xamuñu ci ay xabaaram lu bari waaye xam nañu moo leen gis loolu ma fit lii ñuy def moo tax ma arrière keneen ci ni ko moo ne man de loolu laa leen keneen ci ni man de loolu ba mbooloo mi daje ñu ne comme ñun kat léegi fi mu nekk nii mbokkoo boole lañu mooy al uxuwal iman yi te nag loolu la uxuwal mooy ndax mbokkoo dëgg mooy al uxuwal iman yi léegi bu loolu amee ñoom ñu daal di ci xulaasa tënk xisam ndax xisam allah alquran dina ci vers bi dina ci ak bi ci biir ñëw insha allah ñu daal di ñu ñun kat kon nañ daal di ànd nag def benn bopp di xàccandoo di dóorandoo bi loolu amee buur bi yëg ñu daal ñu ngi leen di critiquer ñu daal di buur bi woowu leen bi ñu ñëwee mu càmbar leen saytu leen gis ni kat ñii am na leneen lu mu gën lu tudd buur bi ñu doon jaar wala xeer yi ñu doon jaar buur bi tëkku leen menacé leen leen bu ngeen jël suñu gannaaw ñëw ci li ñuy jaam loolu xanaa du lu bees ci ku xam gëm yàlla tëkku yéen menacé yi moom dama yaakaar sax day neexal daawam loolu laa wax ndox bi ci suuratu Taaha ci ay jamono tëkku yéen menacé yi dafa wax dafay neexal dafa war a neexal daaw parce que loolu da ngay def émission man maa ngi ci yoon wala njëkk ma waaye tëkk yéen da ngay da ngay wax ne yaa ngi ci parce que boo ci nekk ñoom tëkk yéen menace bi ñëw kon Firaaw la tëkk yi ñu tëkk Muusa tëkk yi nangu doon tëkk Ibrahim tëkk yi buur bi doon déclaré doon tëkk ñi dama ne loolu dafay neexal daaw bi nga nekk parce que da lay wan ni comme fi nga teg sa tànk foofu du jëm biñ leen menacé buur bi def defal leen lu leen arrangé mooy may naa leen fii ñetti fan bu ngeen jëloon gën a ma faagal léegi ñetti fan yooyu mooy seen kaay pour ñu mën a diisoo ñoom fekk lu ñuy def bi ñu diisoo daal di waaw pour ñun ñu ci nañoo ñoom ci wàllu xas-xas te ñoom ñu teg leen ci dëkk ñu gën dem seen yoon loolu mooy wa idaa i'tazaltum maa ya'budu min duunillah comme da ngeen a jiwee ko ñoom fa ñu ne toog ci génn leen ngeen dem seen yoon léegi fa'wu ilal kahf xam nga fa'wu ilaa kahfin mu nekk nakira dem leen ci am xunt bokkut ak fa'wu ilal kahf dem nañ ci am xunt mel ni kon xunt ba dañ koo xamoon wala yàlla daf leen caa gindi ñaar yëpp bu nekk mën na ñu daal di génn dañ ci xunt bi ñu demee ci xunt ba suñu borom nelaw loolu nelaw yoo xamante ni dafa nekk diggante nelaw ak dee nelaw dee maanaam baatale nelaw te yëguñ dee bokk laa ko dox nekk fa nekk fa nekk fa ñetti téeméeri at ak lu toog tëdd rek nii ñetti téeméeri at ak lu toog tëdd rek ba ab jamono suñu borom dekkal leen ñu leen jekkale tam rek dëkk bi soppeeku na beneen buur nekk na fa bu gëm yàlla dëkk bi soppeeku la waa ji waxoon nag aral xayma hiya al xayma wa ara nisaa al xayma xayra nisaiha dëkk bi daal ñu ngi nii fii xam naa ne mooy dëkk waaye ñii ci dëkk bokk ñun ñu ci dëkk gaa yi yeewu bi ñu yeewoo fekk heure suba lañ fa duggoon heure ngoon la ñu yeewu ah bi ñu yeewoo si heure ngoon bi ñu waaw xam nga est-ce que ñun ñaata fan lañ fi am am ñu ni ah ñun dama yaakaar ni yow man aw baa ko yow bis benn journée wala genn wàllu journée parce que gerte laa ñuy doog a soxla ñun bi ñuy dugg dëkk bi laa fay léegi am nañ ci ñetti téeméeri at ak lu topp waaye am na ay mandarga yoo xam ne moo leen di wan ñun ñu yàgg nañ yooyu naa ko leeral ci biir tas bi incha allah léegi gars yi ñu indi yàgg nañ fi yàgguñ fi coow nañ fi kur ñu def ñaari pàcc kii yàgg nañ fi kii la déedéet tey dama lañ fi am kenn ku muus ñu fabaatu ahadakum wa léegi comme ñun yaram lañ wekkee bu ñuy dugg maanaam gerte laa leen di ñu war ñu xëy na te gis nañ ci seen mbir yi ay mandarga yu leen yàgg nañ ndax al imam as-Shawkaani soo delloo ci tafsiram doon ko dafa wax wax bi joobare ko daal ne déedéet sax loolu sax mën naa bëjëree waaye wax bi tamit doon ci dàqaat na ko wax bi moom da nga jàpp ni wér na mooy muy bi ñu yeewoo dañoo fekk seen yooyu yi gën a gudd seen kaw yi gën a sëkk ay mandarga yu leen wan ne lii yaa quelque chose lu wara loolu mooy comme moom ñu ngi sikk sàkk ndax tey laa du tey la leen sikk sàkk loo ci ñu yàgg nañ ci moo ma wan ni kon am na ay mandarga yu gën woon yàgg ci loolu laa sukkandiku ba tey dëkk yoo xam jooju gars yi ñu ni kon nañ jël wecc jox kenn mu dem ci dëkk bi léegi yow boo demee ci benn boutique rek gis nga ñoom ñu ruus la ñu ne boo demee ci benn boutique bi na wekk jox ko ni ko jaay yow wekk bi ñu koy jox bu dee ñu yàgg la bokkut ci dëkk bi ñoom danañ ko xam yow marchandise ya nga xamante ni am tey ci nga xam ne day soppeeku ah mi ngi mel ni benn faa bu jóge fële rek génn xaalis ne ay jaay sukkaru tey beneen boutique bi xam ne sukkaru tey xam nga loolu parce que loolu la faa amoon ci jamono waaye ci bi mu yëg ci borom boutique indi xaalis boo xamante ni dama ci da ci téeméeri maam ya la woon borom boutique bi xool ko daal di jaaxle lool gis waa ji juróomi tëj waa dëkk bi waa dëkk bi moom mi dox naan nii rek di xool rek parce que xam na ni fii mooy dëkk bi yàlla di changé la gis na ñu ne dajeel xam na ni ñii doon ay yéefar gars yi sëb sa ne ko téye ko déet di ko enquête di ko enquête ba histoire bi tey ñu ànd ak moom daal di ñëw ci kunt bi bi ñu ñëwee ci kunt bi moom ñu ngi tombé woon ak beneen buur buur bu baax bu gëm yàlla ci gàttal bi ñu ñëwee ba tiim ba jub xunt mi bi ñu jubee xunt mi waa ji mu ne xaar leen ma dugg yëgal leen ni am na ñuy ñëw bi mu duggee yëgal leen ne leen ah am na lu xew nit leen histoire ba àggal gars yi ñu ne ñun day suñu sellal gën tàmbali woon ñu ngi tiit wér ci allahu akbar loolu dama gën a xaajal jëq suñu sellal gën tàmbali sax ñuy làppatu ñu ngi ragal wér ci ndax ñii bu ñu ñëwee fii xam suñu histoire ak ni mu tiimtaane maa ngi ragal ñu màggal ñu comme niñ doon màggalee ñeneen ñu dut yàlla yàlla rey la ñu dee benn ndax ñu ko ñun ñëpp léegi biñ dee gars yi taxaw si buntu ba mu yàgg xam nga lu taw li dugg fekk ñu dee léegi biñ fekkee ñu dee rek ñu jaaxle loolu waral nag gars yi ñu comme ñii ñu màggale xaaral la dina xalaatu ala amrin la taxilana alayhi masjida mooy léegi nañ ci formé benn jàng loolu waral nga gis gars yooyu yeeg xabru yeeg waaye xam nga gis ngeen ñàkk dégg alquran vraiment dafay wane di doyal di nit ba fexe ne suñ tegtaloo alquran di wax loolu xaaral la dina xaaral ala waxul xaaral la dina utul ayma waxul xaaral ulama bi xaaral la dina galabu ala amrihim wala xaalibun hum al aktaru walakin aktar nas la yaqiluna la yaalamun la yafqahu galabu wax ñu nag ñu nag ci mbooloo bi ñoom ñoo ne nañ ko defar jàkk ñu nag en général ñi ëpp la ñuy doon te ñi ëpp toujours yàlla ñoo ñëw ay innocent la ñuy doon kon ndekete ci jàpp ñu jàpp mën a ci jël arme kooku innocent pur yi loolu la wax alxuraan bi teg kon ku seen xasal yi loolu ci gàttal ci tamit loolu la alxuraan bi teg merci suñu borom ni am xasibata ndax da ngaa njort ni wala boog bul yaakaar ni anna asxaabal kahfi naka asxaabal kahf war raqiimi ak mbind ma nga xam ne mu leen bindoon seeni xabaar wala seen téere ba ñoroon kaanu dañoo nekk min ayatina ci suñu kéemaan yi ajaban di kéemaan léegi fii am na ñaari dégg-dégg dégg-dégg bu njëkk bi mooy suñu borom dafa wax ni ko bul jàpp ni lii kéemaan bu rëy la ba ëpp dayo parce que am na leneen lu ko gën a kéemaan ndax la xalqu samawati wal ard akbar min xalqillah Cheikh Nasir Saadi ba dana tafsir muy waaye lii du tee nag du tee nag mu nekk kéemaan mu ne kéemtaanu yàlla bu mag la waaye dafa bëgg a wax ni ko bul di jël rek jege ñoom doon ñooy kéemaan ndax li la jaaxal parce que am na yeneen yu gën a kéemaan te ñu ngi ceeb kon ñaar yëpp duñ ci rek am na léegi foofu mooy leeral ni xista bi ni ko suñu borom nekk nii dafa dafa neex lool ndax ñeenti aaya yi ñu ngi gis benn bu ci nekk boo ci defee wax sax ak njàngale la ko suñu borom def boo xam ne tamit na muy genre introduction loolu mooy lan am xasibta anna asxaabal kahfi wa raqiimi kaanu min aayatinaa ajaban muy benn in awantu ilal kahfi ba mu aay jeex muy ñaar fa darabnaa alaa aadanihim fil kahfi siniina adadan muy ñett suma baax naa bu mu jeex muy ñeent muy ñeenti aaya yi benn ci nekk suñu war a def comme lay kaayu xis sax boo seet ma jëlal kon bul toog ni asxaabul kër ak arraqi muy seen mbind ma dañoo gën a kéemaane ci ni yàlla sàkk déedéet am na yeneen kéemaan yu am kon lii li muy wane mooy asxaabul kër ak seen xis lu yéeme la waaye li muy yéeme yéeme ci nag am na lu ko gën a yéeme ndax li ko yàlla jox ko ni ko Ibn Kathir waxee mu ni ñun la jot ci alquran ak waxyu ak jibril bi wàcc ak kéemaan bi suñu borom jéem nee na loolu moo gën a rëy asxaabul kahf te loolu mooy li gën a wér suñu borom mu ni it jamono ba nga xam ni awaa dafa demoon alfityatu wala awaa dafa làqatu alfityatu gone yooyu rek nga xamante ni ñu néew lañ yéen kër bi ci xunt ma fa qaalu ñu ni rabbana yow suñu borom aatina yàlla nañ ñu may min ladunka bàyyi ko fa yow rahmatan yow suñu borom ñu ngi sàkk ci yow yërmande waxal yi lana nga jàppatalal nu min amrina bi suñu mbir ñii ñu nar a dem rachadan bi da am ci njub léegi aaya jooju dafay wane ne kon ñoom tabarra'u min xawlihim wa xawli gayrihim wa quwwatihim wa quwwati gayrihim ila xawlillahi wa quwwati muy ñoom ànd ak li ñuy gëm gëm def nañ li ñuy tuddee sabab ittixaadul asbaab mooy gëm nañ yàlla te gëm nañ ni li nekk mooy dëgg ba pare ñu daw lu tax ñu daw mooy ittixaadul asbaab dafa bokk ci ñi nga xamante ni laa yunaafi al iman billah jël tey sabab di dàqonte gëm yàlla loolu ni ku ci jaar day dee nga am am firnde yu wane ni kat luy rewee ma nga fa da ngay teg ji te loolu di dàqonte daw dogalu suñu borom moo tax la waa dina Umar ibn Xattaab xëy dëkk bi am kat ngay doo ko dugg da ngay daw dogalu yàlla mu ne ko waaw waaw damay daw dogalu yàlla xam ci beneen dogalu yàlla afirru min qadarillahi ila qadarillahi loolu lay tëdd biir diin da ngay daw dogalu yàlla mu ne ko waaw damay daw dogalu yàlla bii dem ci beneen dogalu yàlla kon ñoom gëm nañ yàlla gëm nañ li ñu nekk mooy dëgg même bu ñu leen tàmbalee ñu lay leen ci dëkk leen dee waaye nag pour sàmm seen pas-pas daf leen di jaral ñu daw lii dafay wane ne kon képp koo xam ne ngëm yàllaam laaj na ko mu déplacé wu fa mu nekk kooku déplacé wu def koo war te loolu ci ittixaadul asbaab la suñu borom mu ni is ba nga xam ne awaa dafa laqatu al fidyatu garay ilal kër bi ca untuma fa qaalu ñu ne rabbanaa yow suñu borom aatinaa yàlla nañu may min ladunka bàyyi ko fi yow rahmatan yërmande wa hayyyi lanaa yàlla nañu nu jàppandaral min amrinaa suñu mbir mi rasadan ak njub kon ndeke nit ki lépp lu mën di jàpp ci njub dafa war a ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu taxal ma waaye gisoo bu ñaanee ci dafay gëm ni yàlla da koy nangu gisoo ñoom bi ñu ñaanee fii ñooy ñaan waaye ci kanam da ngay gis mu ni fa'uu ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi yàlla da koy def kon ñoom ñaan nañ man waaye gëm nañu yàlla day def li muy li ñu ko ñaan parce que képp ku ñaan yàlla te li nga ñaan mooy yàlla néew ci dox ak mbokk néew ci yàlla dana la nangu wax yéen ci bi ne ud'u llaha wa antum muuqinuuna bil ijaaba ñaan leen yàlla te li ngeen di ñaan jëriñ gëm yàlla da koy doon kon loolu masala moom ci ñu mën a bàyyi xel kon fa'u ilal kahfi dem leen ci kuntuma iz awaa ba mu làqoo al fidyatu min kahfi fa qaalu ni rabbanaa yow suñu borom aatina yàlla nu may min ladunka bàyyi ko fi yow rahmatan yërmande wa hayyi lanaa yàlla na nga nu dimbalee min amrinaa rashadan te lépp loo xam ne dégg nga ko nag lépp loo dégg nga ci mën ngaa ñaan ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada bépp lu jëm ci loo xam ne mbirum diine rek la te yaa ngi koy ñaan yàlla dimbali la ci bëgg caa am ndam ñaan bi nga ñaan ko bal sax nag rot na ci ñaan yi sunna yi kooku mooy benn bi ci def suñu borom mu ni fa darabnaa suñu borom mu ni ñu daal di fukk ala aadaanihim ci seen dégg-dégg yi ba dégg gi demee tëb noonu lii moo tax ma ne dañoo paase nelaw te àggul ci dee ndax ab borom ba muy dóoru fëgg ku ne xam na ni fëgg boo ko defee tënn day am te day soor suñu borom subhanahu wa taala mënoon naa wax rek ma nelaw loolu waaye borom la balaaga alquran borom allahu ala aadaani yàlla dafa fëgg seen nopp yi léegi fëgg boobu mooy suñu borom nopp moom mi ngi fonctionné ba léegi waaye li muy fonctionné suñu borom fëgg na tamit sa baaraam dafa am lu mu ca defoon ba tax ñuy dégg suñu borom fëgg loolu ca biir ba tax dégg-dégg amatul ñoom dootuñ dégg ci aswaat na nekk ci loolu mooy nelaw yi moo tax borom xam-xam ñu ni seen nopp yaa ngi doon fonctionné seen nopp yi nit maanaam ñu ngi fi woon waaye dafa fonctionné fi woon maanaam dégg léegi lii moo lay wan ni ëppal nañ nelaw xam nga su ma nelaw dañoo jéggi nelaw mën nga demee foofu ak benn aaya bi laa ko fekk mooy alxuraan ci boppam yëpp yëpp yëpp kii noonu parce que xam ngeen ne kii nelaw dama dégg est ce que xam ngeen loolu kuy nelaw day dégg nit ki bu fekkoon dafay nelaw kan ba ngay doonee bàyyi sax te moom ñu ngi nelaw te ñu gën a kii nelaw nag moom turam la gën a mën a dégg loolu xam nga seetlu ngeen ko la dégg man ngaa laaj yeneen tur moom muy nelaw bu muy te boo waxee turam ñu du ma wax saa boo waaye léeg-léeg lépp da ngay yóbbu rek te boo mën ngaa waxee ci loolu man nga xamante ko lan la waaye kéem taan suñu beneen bi ci des mooy kii nelaw ci boppam ay noppam mën naa dégg waaye su yoroo nga laaj li mu dégg di ko xam parce que nopp yii dégg borom bi def ko programme yi waaye xel yi luñ jëfandikoo dégg-dégg du am moo tax mën ngaa ñëw ni ko eh kii kan la mu ne mën a dégg tëddaat ne la te après doo yoroo ko moo tax alxaafis ibn xajar sa dalee fathul baari mu ne biñ ko laajee diggante gëmmentu ak nelaw mu ne saa boo xamee ci nii yaa ngi am looy yëg di am luy rëcc nee na su boobaa yëgali da nga ko waaye saa boo demee ba yëg googee dañ ñu yëgal ni jékki nga gëmal di nelaw la ne ñu foofu la ñuy xàmmee ne diggante ku gëmal toog koy nelaw kon suñu borom ko gis seen bopp fil kër bi ca kuntuma si nii na ajalan ay at yu bari te loolu nga firnde yi sa kanam si daal su la ñu ñëw mooy ñett téeméer at ak juróom yéen trois cent neuf ans def nañ ko kon borom bi tabaraka wa taala allahu ala aadama ñu gis day wane seen tànn suñu borom ndax suñu borom kat li ñu tàccee nopp muy dégg su ko neexee dafay dañu dindi dégg dégg ndox wax du gis dëkk nekk yi mel ni mu war a mel te du gis léeg-léeg nga gis nopp nekk yi mel ni mu war a mel te du dégg kon lay tax muy dégg ak secret la boo xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko ci def boo demee ci doomu borom xam-xam yi nga xam ni ñoom seen xam-xam dafa màcc jëm ci doomu aadama buñ lay wax borom bi subhanahu wa taala seen daal yi nga def ci nopp ba tax nit di dégg laa hawla wala quwwata illa billah li nga xam saa réew yoo xam ni moo tax du xool xobu garab ñuy cas nga dégg ko dafa am ñuy jëfandiku yooyu ngay dégg am loo xam ne lu ñu tëll tëll tëll am na yu gën a mag yoo xam ne te ngay dégg léegi parce que da ngay tënk sama da ngay tënk sama nopp yi parce que dafa am réew yu sew yoo xam ni tëll tëll di koy arrangé wu daf koy yàq moo tax léeg-léeg yenn yuuxu yi wala boo yokkee ak lu mu tëdd da mel ni day jënd say tympan gis nga tey boo taalee baax nga jékki-jékki rek nga bés ni mu doon tënkuwee nga xamante ne dangay séen sax ci bi ci kanam commencé nañ luy jayaxu noonu la yàlla liggéey nopp la kii kii moo tax boo liggéey bett nit ci wax baax da nga leen di gën ay dem kii naan boobu mun na def ci bët mun na def ci génn mun na def ci bakkan mun na def ci tabaraka allah taala kon suñu borom subhanahu wa taala mu ni fa darabna ala aadanihim ñu daal di fëgg ci seen nopp ya seen kër ci xultuma si nee na adadan mooy ay at yu bari joxewut lim bi waaye dana war a ci kanam ñett téeméeri at la ñu topp kon lii li ñu war a mooy yàgg na mbokk yi fan ngeen ma sa xamee ay nit ñu tëdd nii la ñuy deewuñ ñu tëdd ñetti téeméeri at ak lu topp suuf lekk na seen yaram déedéet lu tax dina ñëw ci aaya bi nit ñi gis nañ leen lu tax ñu ne gis ñu ne seen sëriñ dëkk bi dina ñëw ci aaya bi lu tax te ñoom topp yi ñu sonn ci tëdd gi te dañ ñëwee mënu ñoo xam ne yàgg nañ fi daalika min ayatillah loolu si kiimaani suñu borom ne moo tax suñu borom ni summa ginnaaw loolu ba'atnaa ko ñu dekkal leen gis nga fii dafa fii baata ñu dekkal leen lu tax parce que dañoo paase ne la yooyu suñu dee dañoo paase ne la li ma wax sànq moo koy firndeel ak suñu dee li ko war a ne suñu borom ba léegi waxul dañoo dee darabnaa alaa aadaanihim dama fëgg seen nopp dégg xam bu dee Uzayr moom bu dee Uzayr suñu borom dañuy fa amaatahullah yàlla faat ko mu dee te sa Uzayr gis ngeen ñu kii tam la bu xaw a niroog bii xëy na dina gën a leer ci dars bii di ñëw incha allah suñu borom ne summa ginnaaw loolu ba àgg naa ko ñu dettal leen wala ñu jëkkati leen li naalama ngeen ñu xam léegi ngir ñu xam ne ci boppam képp yooyu mooy ngir suñu borom xam ne xam ne suñu borom wax dëgg la li naalam ngir ñu xam. ñëw na calfaan ñëwaat calfaan li muy tekki mooy ngir yàlla xamal ni ñun ñun suñu borom moom xam na ndax nag programme fa mu tàmbalee moom balaa mooy am na ko xamoon ndax loolu bokk ci xam-xamu suñu borom suñu borom amul lu koy def comme ñi nga xam ne kuréel sànq yi noonu la ñuy jàppee suñu borom ñu ñëw du xamagu am na ñu jàpp loolu bi am na ñu fas loolu ndax suñu borom subhanahu wa taala ñu wax li naa la ma ngir ñu xam kon day ne kon bu amuloon suñu borom du xam loolu la gars yi la fekk diir suñu borom xam na te ñun ci xam-xamu suñu borom la moo tax borom xam-xam yi li ñuy wax ni lan nga xam ci alxuraan maxlu aw gayru maxlu benn borom xam-xam bu ne ko xam-xam day alxuraan day min ilmillah wa ilmullahi sifatun min sifatillah wa sifatu farawna an da ñu jeex alxuraan melokaan la ci melokaane yàlla yi te melokaan banqaas la ci dëmm ja kon bu melokaan yi nekkee maxluuk rek jëm ji day nekk maxluuk borom bi subhanahu wa taala mu ni li naa la ma ngir ñu xamle ñu xamal nit ñi ni ayul xisbayni kan ci ñaari mbooloo yi ahsaa moo gën a wattu li naa lamis daritu ci liñ sax ci kun kunti ñi abadan ci ab biir maanaam borom subhanahu wa taala day wane ni ngir ñaari kuréel yi ñaari kuréel nag borom xam-xam yi juyee nañ ci juyoo bi nekk ñenn ñi nee nañ yahud yi la ak nasaara yi ñoo doon werante ñenn ñi ni déedéet jullit ñi ak yéefar yi ñoo doon werante ñeneen ñi ni asxaabul kër ci seen jëmmi bopp ñoo doon werante te al allaamatul quraani ash-shanqiiti boobu la gën a firndeel donc man nag dàqu ma yeneen yi ci des ndax mbir yi may jëkk wax lu tax mu firndeel boobu dañuy axsanu maa yufassaru bihi al-qur'aanu al-qur'aan li gën a baax lu ñuy firee alquran mooy alquran ni moom wa kadalika ba'asnaahum li yatasaa'alu baynahum li yatasaa'alu kon ña ngay yarante mu ne baynahum ci seen diggante kon loolu moo lay wan ne yarante woon ci seen biir la woon moom aaya jooju la tegtaloo ba wane ni kon ñoom seen biir la waaye yeneen tamit dàqantewu kat moom ndax bi nga xamante ni gars yi dikk nañ ci dëkk bi teewul waa dëkk bi ci seen jëmmi bopp ñu ngi doon werante ci seen biir gars yi ñaata fan lan la moo tax loolu moo tax na sukkandiku ci wala ni kon mën nga see gën a dëgëri dàqantewu ak bii ñeneen doon nañ caa werante moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni summa ba'atnaahum ñu dekkal leen wala yëkkati leen li na'lama ngir ñu xam ne ayyul hizbayni kan ci ñaari kuréel yi ahsaa boo gën a feet limaa labisu ci ab diir man fa am limaa labisu tamit fa amadan amad mooy ab diir maanaam diir limaa labisu ahfa amadan ahfa amadan limaa labisu xam sax dina taxir mooy kan ci ñoom mooy koo xam ahfa bu gën a takk amadan diir bi nga xam ne limaa labisu limaa labisu ca lañ fa sax léegi kon léegi aay yooyu mooy laytaay bi nga xam ne moo ñu doon ubbil saar bi léegi suñu waram waaw moo ñu doon ubbil xista bi suñu waram ne doo ko tàmbali nit bi xista ko ci ak faram-fàcce suñu borom kon werante gi nag li koy firndeel ak li koy dindi mooy wax suñu borom ndax alxuraan kat moom woon faasal suñu borom ne ndax ñun yàlla te ñun waxoon naa la mooy suñu borom subhanahu wa taala xam nga may fàttali waxin bi suñu borom di wax ndax lu ngir leeraloon naa ko dars bi passé maanaam nit dana jékki-jékki moom yàgg ku ne ku ne ku moom ñu nga ne ñun ñoo ko fekk loolu li tafsir yi ngir màggal la kan moo def lii nga ne ñun waa jàkka bi fekk amoon na kenn rek ko def kon borom soo ko ku màgg la li wax ñun yàlla ngir màggal di tafsir boppam la gën a màggal boppam la inna anzalnahu fi laylatil qadr nahnu ja'alna nahnu ja'alnaha tazkira nahnu qaddarna baynakum al-mawt inna nahnu inna anzalnahu fi laylatil mubarak ila axiri yëpp borom bi rek la subhanahu wa taala loolu ahlu sunna wal jamaa sax mooy li gën a wér mooy nahnu ñun yàlla naqussu alayka ñoo lay nettali nabaahum seen xabaar bil xaq ñu tegi ci dëgg la kon wala yeneen yeneen mën nañoo wax waaye nag wala yunabbi'uka mislu xabiir amul ku lay nettali lu wér ba mel ni li suñu borom di nettali suñu borom yi nag ñun yàlla naqussu alayka ñoo lay nettali nabaahum seen xabaar bil xaq ci dëgg boobu ñu innahum ñoom day fityatun am mbooloo lañ moo xam ne ay juge lañ fitya tamit kon dañuy wax ni nee naa la fitya jamoo xilla la. jëmee takfiir la waaye day waaye tamit ay jeunes lañ ay ndaw la alfityaan bu ko arab yi waxee mooy ñi nga xamante ni karaw yi day jaaw fee na ci ñoom ñun nag bu ñu dee gone dañu jàpp mooy fukki at ak juróom ñaar fukki at jëm suuf déedéet ba keroog ngay yegg quarante ans dañ lay wax gone boo ko yegg quarante nag wala ma balaga asudda léegi nag yaa ngi commencé jëm ci dee moo tax boo yeggee ci ñeent fukki at ñu nekk yegg na corosement àllaa wallaay loolu mooy loolu maanaam ci làq ñeent fukki at bu fekkoon dox bi ngay dox jëm àllaaxira dafa am koros naa boo xam boo bayee te dañ naan yow xaajal nga bu amee ñeent fukki at xaajal nga ñëpp boo ko ndëkkee rek ba ñeent fukki at xaajal ba tax benn waaye dafa wax waxtu ibine mu nag bi dafa dajeeg ñaar waaye mu ne ko yow ñaata at nga am waxtu ibine mu ne ko bu ko bu ko yaa dafa dajeeg benn waaye ñu ko ñaata at nga am mu ne ko juróom benn mu ne ko yow juróom benn fukki at ngay dox jëm ci yàlla te ba léegi yëgg ko rek waa ji ñëw ñoom maanaam seen kalimaat yi dafa nekk baat yu yor yoo xam ne ña koy wax kenn xamul fu mu koy génne waaye nañ koy waxee day àgg seen xol juróom benn fukki at ngay dox jëm ci yàlla te yëgg ko ba léegi xam nga dafa tiit lu dox te sama gudd la ko la laaj soxla ala kulli xaal nit ki bu yëgg ci ñoom seet na sinaata naa gëm na kon fit ya mooy ay gone lañu woon lii tamit li ñu wane mooy jeunes yi comme ni ko alxaafis ibn Kasiir di waxee jeunes yi ñoo gën a am xabul toujours ci jëm ci daawa loolu firnde bi boo demee ci daawa bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga ñi ko gënoon a gëm mooy gone yi ñoo ko toppoon ak jaam ya ila axiri am na ci ku mel ne xataada ci borom xam ñu wax ni pour yàlla ni la jeexintal yi nga xam ni moo nekkoon ci seen ñu doon jaaru des na ci ñoom am na ñoo xam sax ñu ngi takkoon ay jaaree noonu loolu nag nekkul yéen ñu jigéen jigéen ñi kon ñu ko jamono yi defee déedéet maanaam dafa bokkoon ci seen aada te te ku ñëw ci diine du fàtte la loolu xam nga ni ku doon jaamu xëy na kay laa doon dafa aadal ko fay bu dee gis ak takk nopp moom la métier parce que laa doon dafa aadal ko fi lañ nekkoon téefar la te ginnaaw téefar bàkkaar amatu fa kenn toppatu la lañ lay topp mooy jaxal mu jeex kon suñu waral koo tala muy innahum ñoom day fityatun ay jeunes lañ ay xale lañ yoo xam ni aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom wa zidnaahum yàlla dolli leen hudan ak njub ak iman aaya jii ci aaya yi ahlu sunna wal jamaa teg la di wane al iman yazidu wa yanqus iman day yokk di wàññeeku yazidu bi taat wa yanqusu bil maasi innahum ñoom fityatun ay jeunes lañ yoo xam ni amanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom wa zidnaahum hudan yàlla dolli leen jub ba léegi da nga ci déggat ni kon balaa laa yàlla defal dara da ngay def dara yow fityatun amanu yàlla dañu taxawal seen iman dañ ko amee ñu def tuuti effort yàlla defal leen dara kon balaa laa yàlla defal dara da ngay def dara yow da ngay jéem a def effort nit iman suñu borom dolli na ko wa yazidu llahu alladina ihtadaw hudan ah ah ak aay bi nga xam suñu borom ne yazdaadu imanan maa imanihim walladina ihtadaw zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum ak yeneen ak yeneen yeneen dëgg la dina amul ci aar yu bari dafay wane ni gëm yàlla day yokk di wàññi alors sunnatu wal jamaa dañ ñoom ci seen biir sax am nañ jiwee ci yéen di wér ndax am na ñoo xam ne ni iman da léegi day yokk te li ñëw ci biir ahlu sunna laa wax ne wal jamaa bi ci ahlu sunna moom am na ñoo xam ne iman laa yow dina la nekk yow sa iman ak iman ak jibril ñoo yem xam nga loolu wax dëgg yàlla mooy waxi nax nakandal dëgg la sa iman ak iman firawna ak iman abu jahl lépp na bokk yem iman bi yokk ci wàññeeku comme ni gàtt gàtt daaral ne pare ni gàtt gàtt daaral loolu moom xel sax da ko nangu kon iman day yokk di wàññeeku waaye su ñuy taw su nekk wal jamaa am na ñoo xam ne ñoom dañu iman day yokk waaye di wàññeeku ñu ne tax ñu ne yàlla yokk di la tax ci alxuraan alxuraan ba mu teg te wax lu mu dëgg boobu amul benn tegtal buñ buñ gis bu yore ni ziyaara bi am na waaye ñu ne naqs day wàññeeku waaye nag foofu li ñu leen di tontu ñooñu dañuy wax ne luy yokk mu ngay gën a wàññeeku lépp loo xamante ni qaabilatun li ziyaada qaabilatun li nuqsaan tey nag lu yokk daa fekk daa am fu mu newoon loolu la ñu tuddee mafhumul muxaalafa lu mu yokk na nam nga ñu yokk na waaye léegi da ngay laaj ba balaa muy yokk fu mu newoon xam ne kon man ci wàññeeku kon lu yokk rek daa jóge ci wàññeeku kon la taxal yokk gëpp moo tax arab bi wax ni wa bi dubbiha tatabayyanu al-ashyaa ci saxaan yi mooy tax mbir yi di leer ndax booy leeral nit ci guddi xamul lu da nga daal bëccëg ne nga ne ko lii leer na àgg si naan ñi mooy saxaan la nekkoon nit ci guddi kon iman day yokk di wàññeeku loolu mooy mazhabu Buxaari Sufyaan as-Sawri Sufyaan ibn Uyayna imam al-Awzaa'i ak imam ahlu sunna wal jamaa yëpp loolu mooy seen wax kon wa zidnaahum hudan suñu borom doon leen jib kon ñoom am na gën bu nekk seen biir suñu borom li wa rabatnaa ma yeewal leen ma dëgëral leen ala quluubihim ci seen xol yi maanaam borom soxla dëgëral leen na ci seen gëm ah it jamono ba nga xam ne xaamu dañoo jub fa qaalu ñu ne rabbuna yow suñu borom rabbuna suñu borom bi rabbu samawaati wal ardi mooy borom asamaan ak suuf lan nad'uwa abadan ba faw duñ ma ba jaamu min duunihi walis yàlla ilaahan keneen ku ñuy jiim yàlla ndax suñ ko defee laqad qulna idan dañoo wax kon su boobaa shatatan lu jëm lu jegey kàcc aaya ji am na ay waqafaat waqfa bu njëkk ji mooy borom bi subhanahu wa taala ni rabatnaa alaa quluubihim yàlla moo dëgëral seeni xol dëgëral boobu xam nga li ko andi wala bokk na ci li ko andi mooy gëm yàlla juyoo sa waa dëkk juyoo dafa metti mbokk yi juyoo dafa metti de sa bàyyi li nekk nga bax sa génn kër xacc waa dëkk bi ñu nekk nga bako ñu génn dëkk bi xacc étranger ni mu mettee tumuraanke ni mu mettee nekk sa kër daal ni mu neexee jege say mbokk deret ni mu neexee yooyu yëpp yëpp yëpp nga mën a caa bàyyi seytaane dana ñëw mu la defal nii defal la yàlla mu ne wa rabatnaa alaa quluubihim yeewal leen seen xol yi ba deltu gannaaw dootu leen yoon lu am solo mi noonu ndax ko yàlla jëgal ba dafay tax parce que léeg-léeg nit ci fi mu dëkk jaasi léegi dafay xëcc léeg-léeg nga bëgg def dara te xalaat bi man parce que ma ko defee sama liggéey moom dina mere sama liggéey tax moom daanaka moom ak mu jot ni ma rek may jàng gis nga kon léegi yaa ngi commencé di xalaat ci ginnaaw ah sama façon bi su ma ko defee dana ma génne kër ci jamono bi ni mu nekkee gis nga yooyu ay sentiment la yoo xam mooy tax nit ñi delluwaat te lan doon def lam jóge woon waaye yàlla dikkal ñu rabatna ala qulubihim yàlla dëgël leen seen xol yeeroon leen id qaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard loolu kon li muy teg mooy li ma waxoon sànq mais bala ngaa def bala yàlla defal dara da ngay def dara yow kon jamono bi ñu defee effort ñu jub ñu ne rabbuna rabbu samawati wal ard borom asamaan ak suuf mooy suñu borom lan lan taxoo min duunihi ilaah déglu min duunihi ndekete pas-pas dafay saxal leneen lu dul yàlla rek min duunihi la war a faase moo tax alquran ba mu jeex foo fekk fu ñuy wax yàlla ak yaani rek su ñu koy waxee yàlla ak yaani min duunihi lañ koy féete parce que yàlla féete kaw ñëpp bokk comme ñu seen axiri dañ koy def di jàng dara ñu jàng ñu def ñu jàng ñu def rabata allahu ala qulubihim fa qaalu haada kon lan naa taxoo min duunihi wala ci yàlla kon ñoom ci saako rek gëm nañ ne leneen lu dul yàlla neex la comme ni ko waxee ñun dund lan la doon dund fii daal léegi beneen nokta bu sewal yi ko mooy dañoo saxal tawxiid rububiyya ngir sukkandiku te pour mën a xam tawxiid uluhiyya lan la doon rabbuna rabbu samawaati wal ard tawxiid rububiyya ñoom nag yàlla mooy ci sàkk asamaan sàkk suuf lan la doon min dunihi ilaahan wal ilaahu ci la jëlee tawxiid uluhiyya kon du ñu jaamu keneen ku dul yàlla laqad qulna idan kon suñ ko defee wax nañ ay mbir yu jeng may lan an al xaq mooy jeng ci dëgg te loolu laa soog ma dul dëgg ay kàcc lay doon. kon ñoom gëm yàlla bi yàlla defoon seen biir xool mooy motivé woon dañuy def lu mel nii suñu borom mu ni gars yi daal di wax ne haulaa yi mbooloo mii ngay gis xaw ma naa ñooy suñu nit te nag ittaqadu dañoo jàpp min duunihi walis yàlla aalihatan ay yàlla pourquoi ñun duñ am fayda seet ñu ko di def lu am solo loolu mooy léeg-léeg dama koy wax ci misaal yi ci sunna da ngay gis koo xam ne yonent bi melokaan yi mu jàngalee del ci këpp ci bay del del del del yàq sikki del julli nga def nii del del del del del lu yoon day joor del jàngale jàngale yu bare bare bare bare da ngay gis koo xam ne li ko ko defee xam nga lan la sant bi nit ñi mbaa dama génn ci mbedd mi may naan am na koo xamante ni bu ñu dem ñu sol ngeen dem yére yi waxoon yoo xamante ni sa way fonkal mbir xaj na ca di doxal moom te kenn wax ko dara am na koo xamante ni juste bu gàtt bu bon la sol di dox ci mbir mi kenn wax ko dara am na koo xamante ni moom bu xewlee lu mu gën ne indi tàngal xol bi yëpp waaw léegi xam nga xaw ma taxatu ñu jëlee aariya ñeneen ñi ñoom gën na li mu gën di ko bind léegi lan moo tax man li ma gëm du ma am liberté man kaa bind ahan kay damay am liberté bind ko moo tax muy xaabulaay suñ ñii xawmulaa lay suñ ittixadu min duni aliha li ki ñuy jaamu keneen la ko dul yàlla law laa yatuuna alayhim tey duñ ko andiloon bi sultaanin bayyin ci aw lay wu leer mooy andiloon ko ci lay tegul tegul ci leer sunu borom mu ni fa man azlamu ana kan mooy ci gën a mën a toon min man ci fi nga xam ne iftara dafa fent ala allahi yàlla kadiban ay kàcc mooy nan leen jaamu xërëm nan leen jaamu lii xam nga dëgg yàlla doomu aadama dëgg dëgg dëgg daa am ñoo xam dañoo ñuusul rek ndax bant boo xamante ne yaa ko yàq boo nee kos teg ko ci mu ngi kër tàkk boo gën a xëy mu daanu gis nga gars yi buñ dem tukki dañuy jël aw dàll ñëw ñi ngi def yore dàll la yàlla mën naa tukki mënu naa tukki yàlla moom du ma baale bi ngor be ñi ngay def dàll yi su fekkee dàll yi daa jaaxaan nga ne ah waaw jox na ma ndigal nee na mën na maa dem su fekkee jaaxaan naa ma ci am su fekkente ni da ngaa def nii dàll yi dëkk mu ni yàlla dinañ ci xudul baax nga daal di fomm xoolal ñu fi def na temps yi rek beneen bi léegi mooy Ibrahima alayhi salaam gis ngeen di xëy saam ba mu ba mu ba mu tëjee xërëm ya gars yi ne ko ku tëj xërëm yi parce que ay ko biram intan lañ tëj laaj leen comme que ñu ni ñu ni moo tax Ismaïl dafa tëj xërëm bi nag jël seen yi nga gën ko yéen kay wax dëgg yàlla yéen a ngi ñëw fekk ponkal bii moom moom moo fi gën a rëy Ibrahima dafa def technique la dafa daanoo xëy ndaw yëpp bàyyi ko ponkal ma ñu ne ñun ponkal ñoom beneen di koy jiitee xam ngeen ñoo daanoo xëy na parce que loolu dañ caa leen parce que laaj nañ ko bu fekkee dana wax Ibrahima xam nañ ko wax waaye gis nga jalo bul tëbee li nga li nga li nga am lépp bul tëb yéen ñi doo ko da ngay def istilage benn par benn incaana leen parce que laaj nañ ko bu fekkee dana wax gaa yi ni ko waaye yaa gën a xam ni kii di wax gaa yi mu ne ko pour dëgg boobu ci ay yéen yéen sos kare waay na dem leen di jaamoo loo xamante ni daa yegg ma wala lu wala ñu am ko xëy gis nga rek ci la gaa yi wedde ne bu ko defee rek daal di koy kereel moo tax aw xëy wax dëgg yàlla gis nga amri bin dem wax ne sax sax saxaa boobu nga xam ne dafa soox moom yàlla da ko nattawul dafa amoon ay doom doom yi dañuy wet xërëm bi su ko di jotee rek xam bàyyi dañuy ëllëg su ko digalee dañuy ñëw jàpp xërëm bi takkal koo takkal ba mu tilim wala ko ba ca sën ba sànni ko bu yeewoo topp lii di topp lii di ba ñëw ndeysaan sa xërëm bi nekk mu jëm léegi moo xamoon ku def lii dinaa ko def lu bon indiwaat combat yëpp daal di xale yi bàyyi bàyyi ko dara ñu wataat sànniwaat ci àll bu daal yow ni ñetti yoon ci ñetteel ba nag xale yi daal di ñëw nag wax dëgg yàlla def ay jonkan ca kaw bopp ba déedéet daal di koy sànni ci sën ba ab xaj daal di ñëw jonkan ca bopp ba am na ñu dem wax di ko topp di ko topp di ko topp ba yegg ci ko sën bi ñu dëgg dëgg nag yàlla ji xulli ñu koy wax ñetti fan di ko indi fii ba ab xaj bi taw ci ba toog ci jonkan yow mii boo amaloon njëriñ di ko fegal sa bopp man naa ngi dem sëñ Mouhamed lii moo ko tax a tuur lii moo ko tax a tuur sa tey bàyyi Amra ci riwaaya doon tànn ñoo riwaaya sax dafa bàyyi yéen ñoo riwaaya sa tey ñaata yàlla ngay jàng ko juróom benn yàlla siis yàlla laa benn ca kaw fekk ci suuf maanaam dafa nekk nekk ci asamaan waaye benn ca kaw fekk ci suuf mu ne ko waxee bu ko doon feebaree poñnaa mu ne ko xanaa ki ci kaw dëgg yàlla mu ne ko waa ci kaw laa nekk boo jàppee poñnaa mu ne ko xanaa ki ci kaw wax dëgg yàlla ñu ne ñun ba mu nekk yow boo xamante ni loo xam looy wax mën nga ko wax te ñoo bàyyi ci rek mu ne ko wax nga dëgg loolu moo ko tax a tuur moo tax gis nga bu xel bu ñëwee rek ñu ci lay saa yu daan jàppoon kon gars yi kat amul benn lay lu leer ci li nga xamante moom la ñuy jàng suñu borom dafa mel ni fii nag li si yàq Qur'an bi doon wax ija atazaltumuuhum li muy wane mooy dafa mel ni comme ñoom ci seen biir bopp ñu doon wax wax ji loolu la si yàq Alquran bi wane boo taxee Alquran mu faara na siyaaq bi baat bi lii lay wane mooy ñoom ci seen biir bopp ñooy wax ni wa ija atazaltumuuhum bi ngeen beroo seen mbokk yi wa ma ya'buduuna illa Allah dara nga muy jaamu jaamu leen ko ba mu des yàlla kese ngeen koy jaamu kon nag ba mu leen ko te ngeen seen dëkk bi mooy i'tazaltumuuhum bi adyaanikum fa'taziluuhum bi abdaanikum comme juyoo ngeen ñoom ci wàllu diine juyoo nañu ñoom ci dëmm génn leen ngeen dem seen yoon faq mu uleen kër wax na la faq mu uleen kër alif jéeg laam ji dafa mel ni lil ahd laa lil jins bal lil ahd mooy day lay nekk daf mel ni xamoon nañ kër si dem jëm faq mu uleen kër dem nañ ca xumtuma gis nga yansur lakum yàlla dina la wataare seen borom rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem ji wa yuhayyi lakum mu jàppaneel leen min amrikum seen mbir yi mirfaqan ak yombal kon lii aaya ji moo lay wane ñoom gëm nañu seen ñaan ndax dañoo ñaanoon rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada fii dañ ni ah yansur lakum rabbukum min rahmatihi yàlla dañoo wàcceel yërmandeem wa yuhayyi' lakum danañ jàppandalal min amrikum seen mbir yi mbir faqan ak yombal kon li ñu war a def ci bu ñaanee daf war a gëm ni yàlla dana ko nangu ñaareel bi moom mooy nit ki ni muy ñaan la ci ëpp solo mooy yërmande ak tawfiq ci ay mbiram yërmande ak tawfiq ci ay mbiram moo tax képp koo xam ne yàlla baaxee na ko bu dëgg la lenn mbir moo xam mu mel nii wala mu ko jege jaadu na mu ñaan yàlla mu ci gëm ni yàlla dana léegi mbokk yi xool hada huwa al-iman aynul iman wa haqqul iman billah ñoom jël nañ dëkk bi bàyyi seen i mbokk bàyyi seen i baay bàyyi seen i yaay ñoo xam fan jëm danañ fa am ak lekk danañ fa am naan wér na leen dee si tumuraay bu dee ci doomu aadama yi nag wér na leen si tumuraay waaye ñun gëmuñu danañ tumuraay xam nga tax mooy dañoo ñaan yàlla dañoo gën yàlla dana nangu yansur lakum rabbukum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqan moo tax benn mufassir dafa xool aaya yàlla muy wallahi hayya allahu lahu min amrihi yàlla yombalal leen ndax diine lañ ko nekk lépp di melaw ci jaam yàlla la ñu nekk ci sonn ñaareel mooy biir xunt ba leen yàlla def ni mu melokaanoo te dinaa ko leeral léegi naa fekk ak jàppandalal moo tax yàlla orienté li ñu dem foofu ñetteel mooy ñàkk a delluwaat ci seen pas-pas defe naa loolu moo leen gën a dund kon wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa suñu borom subhanahu wa taala mu ni kon bi gaa yi ñaanee loolu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jàppandalal leen ci seen mbir yi suñu borom mu ni wa tara shamsa nga gis jant bi nag ñu dikk ba ci xunt bi ñu dugg ci biir xunt bi xunt bi yaa wa tara shamsa nga gis soo gisee jant bi إذا طلعت بتنكي كم جمد جيتم تزاور لدي جنب مخزن توتي كتانجور تزاور عن ترتيب تزاور أمر يا لو تزور ها بنت رواية دي مو كده جزر مو كده سير عن ترتيب موي دي جنب توتي مخزن تناك لا حول ولا قوة إلا بالله دوما هذا اللي يقول يلا بيجي سبحانه وتعالى day nekk ci jaww joo xam ne day mos ci kër gi di mos ci naan yi pour mën a pare te asxaabul kër fañ nekk li gën a wér mooy kër su de nekkul comme ab néeg ba jàll ci dugg na ndax tegtal dina am ba sukkandiku ci loolu mooy su meloon noonu kon watara samsa dootul amaat kon lan la mooy kër su ko dafa espacé woon jant bi tiim ko te jant bi bu ko tiimee su lay def saa bu jant tàngee génne ci seen kaw la naan sàpp te fekk ñuy nelaw bu yàggee seen jën yi ñoom kon suñu borom day réglé jant bi moo xam ne bu ko dee dox li mu daan dox ba noppi te du tee na leen di ma xam ci xaboor bi tuuti allahu akbar lii daal li ma ko mën a misaale mooy lii tiim nii mooy am kër jant baa ngi nii su ko jant bu tàngee tànk ci ñoom ngir yaram yi day jaar tàngooru suuf bii peese suuf bi day yàq seen yaram ndax ñu ngi tëdd te tàngoor ni ci nit seen yëre yi tax ngeen yëre bi ñu weer seen yëre yi bu yàggee doo koy fekk mu xotee léegi te jant baa ngi leen tiim suñu borom da koy moyal ci maanaam seen yar bi su yëg ñu wàcc def direct day tànni tuuti loo xamante ni ñoom seen yaram dana ci maanaam mos tuuti lim soxla ci jant bi mooy que gaawoo day jéng su jéngee daal dem doxi leneen lan doon doxi moom jant wasal ko jublu mu xasari na daal di tax dañu am naa donc yow ñu ngi ci rafet lay jox mu matal leen tuuti way jaa garaba bu jant bi dee tey fekk tàngoor mi ngi di des ba léegi taqriduhum mu daal leen di moyaat taqrid mooy ma leen di moy ci daata simaar ci wàllu càmmoñ bi waxuñ ko def ñoom ci tëj la ci ñu ngi ci palaas bi yaat ci bi lu tax ndax lii mooy wane jant ba lu nekk ko aéré wu baax lépp wax mooy ko aéré moo tax booy tabax kër booy tabax kër entrepreneur bi gën a mag ci entrepreneur yi muy islam da lay wax ni nan ko def mu nekk kër bu ñaar yéen ci yàlla ne alayhi salaatu wasalaam gaab bu amoon ci ñetti mbir la am waruwaay yu boobu jigéen ju bon kër bu xat ku ci boole ñett yooyu yëpp da gudd fan loolu ñett yooyu di ko ko dagale doo gudd fan lii suñu mbokk ma ne doon wax naan wata boo xamante ni saa boo xëyee balaa nga dem kaw nga yëkkati ñun kaw ma ñu daan lay dóor nga doole rek man nga teg ci kër goo xamante ni daanaka politique bi da ngay tàllaam ñetti bi leen ci kër yi Dakar yi couloir boobu da ngay tàllaam est-ce que seetlu ngeen ni maanaam kër bu xat day waral xol bu xat foo mën a xam ngeen ko la de gis nga kër bu xatee espace yi bari jongante bi dem nit fu mu dugg rek lumière bi war a am du am jant bi ni mu war a jël di jël même position jant bi léegi tabax kër gi war a bàyyi xel parce que jant bi dafa am aajo ci yow am aajo ci sa biir néeg bi li mu weer bi jant bi tànn ci biir néeg bi loolu dafa baax ci néeg bi bu baax bu ëñëwul ci néeg bi baax moo tax forme bi loo tabaxee néeg bi te chaque jour jant bi sa dugg loolu baaxul sa néeg bi yaram moo tax li ëpp ci ñun ñu gàtt fan entrepreneur bi gën a mag mooy def daal mooy jàngale loolu gis nga kër bu xat seetlu en général li ëpp ci coow kooku lay amee xam nga lu koy waral mooy kër bu xatee ci moom dafay def ay jeexintal yu waxal xol xat la mu ciy faj mooy ku yaatu la nekk ku yaatu parce que comme looloo lañ bu nekkee ku xat te war faa yàgg te aéré wul te ñoom ci duñu taw ci te kenn ku ci nekk dafay noyyi ah dafa am nooy dégage am luy xëcc luy aspiré di ko indi li ngay dégage baaxul te li ngay aspiré daa war a baax li ngay dégage bu palaat bi yaatuwul fii lay toog du dem li ngay aspiré bu palaas bi yaatuwul li nga dégagé ngay aspiré wax bu ñëwaat loolu waral nga gis ñii ñii defal al fann bi amaar yi bu ñu tabax école wala jàkk nga xam ne am boroom nga dee dañ ko yëkkati ba ca kaw ngir ngelaw ci gën a dugg fenêtre yi bari buntu yi bari li ko waral mooy li ngay dégagé daa war a dem parce que baaxul te li ngay aspiré dafa war a baax te bu xatee li ngay dégagé ngay aspiré wax lii bu ñu demee ba mu yàgg ay nit di ko jàngalee xonk na mu demee lii am jàngale na ko ci ñun junni at yi te gën na ma tax boo gën a dugg da ngaa xam ne da ngaa war a ko islam jàngale nit ñi bépp ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam li muy tabax lu jàkk loolu la wax dañ leen ko yëkkati ba mu tiim nga xamante ni xet yi nit ñi jóge ci àll ba ak yooyu di mën a dégagé moo am ay bunt ci nit kalaay kon loolu buñ ciy fekk loo suñu borom programme ñu ñoom fi nekk mu yaatu pour li ñuy dégagé muy def ñu am ngelaw bu ñuy aspiré jant bi dinañ yónni ñëpp te kat bu tawee mooy nag bu fàtte loolu tamit de waxum fii faj wax te bu tawee ñoom duñ tooy waxum fii faj wa ci ñun mooy ñoom ñu ngi ci ab digdigal bu yaatu suñu borom mu ngi lu ci topp dalika min ayatillah dalika lii ngeen gis nag min ayatillah ci kéemaani suñu borom man li ma yéeme fekk suñu borom dañu asxaabul kër ci seen xista am na ñu ko gën a yéeme te mbir mi yéeme nii ñu ko war a gën a yéeme xamuñu ñu war a def dalika min ayatillah bu tawee ñoom duñu tooy ndax ci téye tàngooru jant bi ba buy ñëw da nga koy mosal ba nga jël li nga soxla ko dem def dem yoon ci def place bi mu nekk place bu yaatu ngay na ci dégagé bi aspiré bi xëcc fi nga tëdd benn place tamit day yàqu ci yow dalika min ayatillah lii ci kéemaani suñu borom yi la bokk man yahdi llahu képp ku suñu borom jindi fa huwa al muhtadi kooku mooy ci jindi Allah ku yàlla jindi da wan la yoon bi kooku mooy ci jindi yàlla suñu borom jindi wa man yudlil képp koo xam ne suñu borom daf koo bàyyi ba mu tànk falan tajida lahu doo ko amal waliyan ab péete boo xam ne mursidan moo koy jindi ku yàlla jindi kooku du jindi xel la suñu borom mu ni ba tax na dafa am benn benn yaakaar ay xaaral ñu di xoole tey gëmu ñu yëngu faram na ala aadaanihim mooy nopp fonctionné waaye bu ci gën faram xoole waaw ndax bu kubéer nopp amul kubéer xam nga loolu olof yi dee kon lu ci teg amul faram allahu ala aadaanihim fala yasmauna al aswat al xaarijiya baat yi bi ñuy yëngu duñ ko dégg comme ni ngay nelaw kenn du leen sonal waaye nag bu ñu toogee ñoom ñu ngi xoole nii ñuy xëcc seen bët yi wa tax tamit ay xaaba ba doon jiwee da ngay ay xaaba da ngay yaakaar ñuy nelaw waxum ko foofu ñu fekk ñu nelaw dañoo ubbi seen bët léegi lu tax loolu bët bi ci boppam ñu yàlla programme seetlu boo tëddee di nelaw nelaw bi yàgg yàgg yàgg boo yeewu say bët dafay xonq amilaas neewi xonq amilaas nelaw neewi yow mën na ko dem quatre heures suy def xonq bi amilaas neewi foofu boo nelawoon trois jours soixante heures looy def suñu borom kon ku fi wuti ngir loolu ba neex ñun bu ñu waxoon suñu borom ñu waaye xam nga ci ne maanaam yàlla bu ñuy jàngale ci alxuraan kéem jàng parce que daf ñuy wax yi nga xamante ni doomu aadama xam te suñu borom bu ko waxoon ñu ngi kunde lépp nekk nañ ko bëgg léegi bët bu ñu xoolee te waa jaa ngi nelaw xam nga loolu tamit léegi mu gàll da ngay gis gis ñu waa yi ñu war a gis yàlla kii ma am na doomu suñu borom bu ñu indi ci dana xam ngeen ci li moom dafa saay saay saay saay ba ñu mel dafa jàpp ni ñoom ni ñëpp mel comme comme ni sàgg la moom xelam bi daal ko ñu nelaw parce que moom jàpp na ni ñu nelaw ñu koy sax si luñ xaraa jënd xel sën la gis nga koy nelaw day def ñu xel gëm bi ba ñu day nelaw xam nelaw mu ne ko yeewu ne yeewu ñu ko ci lu noonu lay moo tax benn waykat yéena ma bi ihdaa muqlatayhi wa yattaqi bi ihdaa rajaayaa fa huwa yaqdaru naakimu mu ne moom day yanaamu day nelaw bi ihdaa muqlatayhi ci benn bët bi wa yattaqi muy garde bi ihdaa te bay nekk arrajaayaa yi koy law muy fa huwa yaqdaru naakimu kon moom daa yeewuy nelaw yeewuy nelaw yeew ba pare di nelaw loolu moom rek la xam ci borom suñu jël suñu borom xanaa ñii nga xam ne suñu borom dafa ay xaawal kii nga xulleeku wala nga kóob fekk ñu ngi nelaw te it nag yàlla mu ne yow xaram ñu boogum ñu leen di wëlbati zaatal yamini wetu mbay joor wa zaatal shimal ak wetu càmmoñ lu tax ndax yaram yi ñu tëddee nii bu yàggee day topp su ko defee mu ngi nelaw waaye kii nelaw li muy def dafa ëpp nelaw bu def nelawu neen fetal comme mën na wëlbati ko moo bu sonnee waaye comme mbir mi du nelawu neen dafa nekk diggante nelaw ak dee kon du mën a wëlbati ko suñu borom di koy parce que bu koy wëlbati suuf day nekk yàlla suuf ba tegee nii nga bàyyi rek déplacé wu bu yàggee rek mu commencé di ko lekk léegi pour mu mën koo lekk dafa xam ne ñu ngi dënd wëlbati gaatal yeneen yi tey mu wëlbati ko wetu day jox ba gaatal chimaali ëllëg wëlbati ko wetu jox xoolal buñ fi faj wax kéemaan la wa taxkan wa iqaaban kéemaan la wa ñu xale dugum kéemaan la dara ñu leen kenn mu nekkoon nekk kéemaan bi suñu borom ni leen wëlbati gaatal yeneen wa gaatal chimaali وكلبكم كالخد باسط ذراعيه mooy mi ngi lal ay tànkam bil wasili ci bunt bi wa kalbuhum baasitun ziraa'ihi bil wasil dañoo àndoon ak benn xel benn borom xam-xam mu ne xel bi toggkatu buur bi moo ko moomoon ñu ànd ak moom am na ñu ni benn sàmm leen romb xajam daal di ànd ak ñoom am na ñu ni déedéet xaj bi ci boppam dañoo génn ba ci ginnaaw bi mu dab leen di mbaw gars yi daal li leen si Israël yàlla dafa fi leen ñu dàqaat ko mu di kar mbawaat dem si leen ñu dàqaat ko muy ñett yoon mu yëkk ci tànkam lay doon ñu jëm ñu ngeen gis ngeen yàlla ji ngeen jëm man moom laa gëm bu ngeen demee dama leen di kaar yi ñoom kaar saxaaba yi moo ko rële ci loolu nag li tax ma yëkk ni ko bokk ci xuraafa dañuy dàq ndax dafa am loo xam bu ko alxuraan sax waxoon nga dikk mën nañ koo nekk li li li li li saa at bi yéen ci kii naan suñu borom xalaat sax ko ay kat comme ni nga xam ne laa ko nekk loolu si tas bi paase waaye ni alxuraan saxal dañuy li gën a wér te moom la ci alxuraan ji saxal mooy xaju kenn ci ñoom la woon mu ànd ak ñoom te lii tamit ña kenn ci ñu mos a mën ko beneen ay sàmmkat la ñu wax parce que sàmmkat mooy faral di rafet wa kenn bu ñu koy xaj bi baasatun ziraa'ihi mi ngi tàllal ay tànkam bil wasiili ci buntu xunti bi xaj bii de am na garab lool kenn ci ni fas yi dafa xool aaya ji doon yàgg mu ni lii daal day war ni kon ndekete ànd ak ni baax daal baax ndax damaa xam ne xaj ak li ci lislaam wax lépp fii kalbukum kalbukum kalbukum kalbukum seen xaj ba seen xaj ba xaj ba xaj ba xaj bàyyi ko ànd ak gaa yu baax yàlla moo tax boo bëggee baax da ngay ànd ak ñu baax parce que xaj ba koy mën tax mu damaa xam ne xel ni am na dara bu sumb ko su bes ko fi su bes ko fi di mun ay nit boole ko sax kon nag bu ko fi dugal mooy boo ko gee baax da ngay ànd ak nii baax ak da loolu compétence wa kan bugum baatalu ziraay bi ñu waxul suñu borom ne la wit falaata alayhi boo yërbi woon ca ñoom la wan lay ca min hum firaaram da nga àbbu njool wala ñu nit ca min hum roxban da ngay ci aay bi ci lañ si ëllëg waaye ni tam di sawkaan yi saxal ni tam amal na seen wéy yi gën na dee gudd seen karaw yi gën dee gudd yàlla def leen melokaan yoo xam ni même yow boo dikkoon bay bay xool si boo ko xoolee ren di def doo ko déglu si doo koy si yàlla def leen melokaan yoo xam ni léegi lool ndax ay suñu jool tëb ñoom ñuy nelaw si noonu suuf si lekk leen waxum fii fan wax jant lakk leen ñu ngi mel ni ñuy xool seen karaw yi gudd seen rëy yi gudd ah lay salaata alayhim gis nga doon woon yund di leen xool la lan lay te min hum firaaran da nga àbbu jol ñu nga taw wala mu nit tamit ñu wax ban di nga tiit tiitaange joo xam doo jëlis doon ci lu tax loolu yàlla sa yàlla def loolu boo ko defee li tax mooy moom dañ ko war toog biir dañ ko toog te bu ko noonu liggéey dana fi ñëw te par exemple mën naa yàq même suñu borom bu ko soobee ñu nit ci am kum la wax lépp toog waaye déggee na ko ñoo xam ne ku ñëw rek moom dana xam doo jël si këram bi moom boo réewee bu soobee yàlla doo jël si këram bi loolu mooy wala nit tamit ñu wax dana mën leen taxaw foofu ndax wax bi ñu jàppoon jeex درس اليوم ان شاء الله بدنا نكون من الاسئله في القصه دي الله سبحانه وتعالى